g Let me know, let me know. down when you turn to To rent. look at the tankuren Tuligi binu gönci jai Prek ay punchline Sambi binu yakalat seni Tugu mi fendi tek Tugula yai president ne momo dede yee ya, asalaamaaleykum wa rahmatullah warahmatullahi wabarakatuh. Ñi ngi nuyu ñep ci nek sa tour ak sa sante di len ciar di len magal len ndamoo len titro di len bëgg bu wër kontaan ci yeen guys comme ni ñu ko waxee le combat continue Lepp luñ ci jublu luñ ci jógte moy Sénégal jëm kanam Sénégal dox ci ray émergence yi nga xamni yàgg nañ ko rêvé Sénégal dox ci dëgg waaye Sénégal bokk ci dëkk yu gën a euh, naat ndem yàlla may nañu ko waaye ñu jël loolu lépp tamit aussi euh, dellu ci askan wi parce que askan wi sonn nañ lott nañ tay nañ damm nañ ñàkk nañ euh, privé nañ leen lépp courant ndox gaz lépp ci àdduna bu ñuy fipp it dañoo jóg rey leen toroxal leen tiiñal leen takkal leen tëj leen donc mu nekk li nga xam ni yàgg nañ koo dund ba nga xam ni euh, pour neexal leen lu yomb la lu ndaw boo ko liggéey rek sénégalais yi kontaan parce que xamuñu ko lu ñu xamul nag boo leen indilee leneen rek dañuy kontaan parce que xamuñu déjà sénégalais déjà dund na ba nu muy day am 40 ans 50 ans xamul loi xamul loi xamul règlement xamul droit parce que euh, liñ koy gëmloo sax ak la yi di doxalee bokkut moom kooku boo ko indilee droit sax ko day contane boko ko touti loi mu deug rek day contane waxuma la nak day tegal leneen ak leneen ak leneen ak leneen donc c'est très facile pour bégal un sénégalais. bëggal un sénégalais c'est très facile mo mel un pauvre ben pauvre nga nga may ko 100 francs wala 200 francs wala nga nga nga ko ci lumu mom rek day contane la ngay def pour sénégalais bi kontaan tay xeyna boko boo ko indiwoon du kontaan parce que fi boko def bo boo jëlee bi defaral ko immeuble. defaral ko stade du kontaan sénégalais da nga koy defaral stade muy jubilé boo boo fii gars yi am nañ ay métro te kenn kontaanu kenn jubilé wu Sénégal boo ko defaree métro day kontaan donc amu ko donc kon pour kontaanal ko ak yomb terre nga koy defaral terre ay ay milliards yoo nga sàcc sax def ko terre day kontaan yoonam newu ci ñaata milliards nga nga pour defar terre boo defar boobu ak ñaata nga ci sàcc moom terre bi rek lay gis BRT bi rek lay gis te BRT boobu boo ko indiwoon ci tubaab yi du doo leen ko defar bañ kontaan doo leen defar TER bi bañ kontaan doo leen ko def parce que am na yeneen priorité yoo xam ne du ay TER ak BRT yooyu loolu ñoom fii lañ ko fekk seen maam yi maamaati maam yi ñoo ko fi ñoo ko fi gasoon ñoo ko fi defaroon donc ñoom loolu guuxu leen lan la ñuy yóbbu seen kër yi chimique bu ñu yokk loolu loolu mooy politique gu fii chimique bu ñuy yokk euh, euh, euh, ñu ñu am droit dem faju ji sans ñu débourser de l'argent am maanaam sécurité sociale bu dëgër donc lu leen yokk ak lu ñu yokk ça n'a absolument rien à ñoom ñu ngi ci ci bu dee dem ci tey pyramide de Maslow ñoom ñu ngi ci les les besoins euh, secondaires ñoom ñu ngi ci yeneen ñun ñu ngi ci les besoins primitifs donc jël benn peuple yóbbu ko ci besoins primitifs yi régleel ko ko c'est très facile mooy lekk naan kor am courant am ndox am c'est des détails am internet am c'est des détails boo xam ne nit bu baax bu ne war na ko mën a defal peuple wàññil ko dundam et cetera et cetera nit bu baax bu ne war na ko mun a defaral peuple am quoi c'est le c'est le strict minimum bu un dirigeant war a defaral peuple am malheureusement amuñu ko malheureusement te yemuñu ci loolu dañuy jàpp peuple yi di leen traquer di leen tëj di leen rey di leen tiiñal di leen taqal yaakaar naa ni loolu nag moom jeex na fi jeex na fi mais nag il faut suivre parce que ba léegi rien n'a changé rien n'a absolument changé ci comportement wu sénégalais ba suñu jonn yàllay tey police yaa ngi arnaqué gars yi ñi ngi arrêté gars yi ñi ngi arrêté borom moto yi ñi ngi leen di ñi ngi leen di sàcc police yeeg gendarme yaa ngi ci tali bi di sàcc ba léegi di corrompre dara changé wu fi dara dara dara absolument il faut que jomaay génn bale bi ba pare boole ci jaas yi di këppati bopp yi il faut mu saf bu ko deful du fi am jàmm gars yi duñ ko ko may parce que rien n'a changé je vous le dis absolument absolument rien n'a changé policiers yi doon arnaqué gars yi ba léegi ñu ngi arnaqué gars yi booy dem ci tali bii da ngay gis ñu nga fees dell oto yi ñu ngi leen di téye ay mille ki deux mille la ñu encaissé ki trois mille ki quatre mille c'est extraordinaire te loolu moo fi amoon ci Abdou juuf am ci Senghor am ci Abdoulaye Wade am ci Macky Sall ba mu ngi ba léegi mi ngi fi gendarmerie yaa ngi arnaqué ba léegi gaa yaa ngi ci tali ba léegi di dóoru gaa yaa ngi ci sàcc ba léegi mafia baa ngi am ba léegi ci bureau yeeg ci par fa amoon yëpp donc il faut que le président Diomaye jóg jël gaz yi commencé takali bop yeeg baat il faut pour mu mën changer parce que ay waxi kese mënul changer ah parce que sénégalais décidé wuñ pour changer li ni doxalee ni décidé wuñ pour changer té sénégalais ñoo wara changer nguur gi pour nguur gi mun leen mun leen see jappalé mais ni ni ñuy taxawee ni du taxaway pare nañ pour changer agression bi ba tay le la tulleeg malé kenn amul fitu génn

Double, double, jubbanti am solo li ci tegu comme niñ ko waxé gal gëj na fi genn di dem gal fi di journalam sa lâche du opposition ay fen du émerger il faut ngeen respecter sénégalais xamni sénégalais man mënuma comprendre nit jàpp sénégalais ay dof jàppee boppam nit gis nga kii jàppee sénégalais yi dof jàppee boppam nit kookoo dof mais sénégalais ko gën a yeewu sénégalais yi bi gaal gi doon jóge fii ci suñu côte yi di dem dañ ko doon gis dañ ko doon xam dañ doon jàpp ay gaal yuy jóge ay ndar di dem ay gaal yuy jóge ay euh, ci petite côte bi di dem et cetera cetera depuis avril gaal génnu fi gaal génnu fi depuis avril donc ce que wax nii suba que nous na doit l'arrêter de ridiculiser de jour en jour Bougan doit l'arrêter fen la Bougane wara bayyi Bougan opposé ci ay fen opposé ci manipulation du jall, man du jall. tu peux pas être un extraterrestre on te connaît quoi bërkaati démb bii ba ngay nekk ay ay wal fajari di fa di fa liggéey ay di di taxawaale yor sa kii dëkk yoof di di loué foofu noonu on te connaît quoi on te jóge ndar fëkk dërëm yoroo ko on te trop bien dugg ci affaire u yi maire bi di la jox ay kii ngay dóori marché nga nga nga nga nekk fa moom ci boppam mu Diop boobu ah kii lu mu kii kii Diop bu PDS lu mu sàcc jox la nga blanchir bul ñu fontoo quoi yow sa waa ji bu ñu fontoo duñ sa morom sa fen yi nga nekkee sa journal yi kàcc ki fen loo dañ leen war di traquer mooy lu président Diomaye wax journaliste gënul tous gënul kenn journaliste yi gënuñu fi kenn bu ñu demee sax bay recevoir journaliste war nañu recevoir médecin médecin moo ëpp njëriñ foofu Pape Diop bras droit wu Pape la woon lu Pape Diop dóor jox ko ko Pape maire de Dakar moom moo ko may lii mu yor nii ay affaire d' accord ay affiche euh, panneau publicitaire et cetera et cetera donc on te connaît quoi yow ca yof ca ca ci wetu géej ga. tu en fais trop là Diomaye euh, kii euh, le gars là comment il s'appelle là Bougane Gueye Dany tu en fais trop man bu ñu fontoo quoi. ku tëb rek bëgg a dara fekk doo tus. loolu lan laa doon waxati sax li nga xam ne nag mooy loolu du du joma buñ ci xaar yi jomaay jomaay munu ko jomaay munu lu dul rëkk seen ndigg lu dul rëkk seen ndigg doo leen il faut que jomaay génne jaase bi di rëkk ndigg sénégalais yi ba mu saf sàpp loolu rek moo mun a yar sénégalais yi amul beneen façon kenn du ko xaar ci leneen lu dul day rëkk ndigg gaa yi parce que ñii joguñu pour mu jaar yoon police yaa ngi arnaqué ci tali bi bu gendarme yaa ngi sàcc ba léegi bërki dem jàpp jappante na ci ben un gendarme sama frère bi yoonu la googu la don dem gendarme yi ñoo taxawal plus de 50 auto ku ñew ñew joxe ñi encaisser di duggal duñ bindal kenn bu mu ñëwee ci mo petit frère nan ko euh, euh télé bi nga yobbu ci ginaaw waro ko fa def lool may lan amerique sax bu la nga jël télé def ko ci ginaaw kenn du la japp dëkku loi yëpp bu la nexi nga jël sa télé da nga def ci ginaaw mu toj da nga sanni ci ginaaw kapp mu mu ci ginaaw nga nga tek ci chaise lolu mo am fi mo am fenen ak fenen gendarmerie bi woko pour mu ñëw jox ko xaaliss comme ñeneen ñi yoonu fatik bi, pour mu jox ko xaaliss koku nag son frère bi ne ko du la jox fukki dërëm fukki dërëm duma la ko jox mu nangu permettre tardel ko fofu ñepp ñew di jox di dem seen yoon hein créer fi loi bu existé wul donc loolu du ay waxi kese ay non Diomaye dina ko def na déedéet na rëkk ndigg na saf xeex bi dafa war a tàmbale mbéj yi di tàmbale dóor yi di tàmbale ba gars yi di xam ni kii foowul foowu foolowulowul loolu rek moo mun a changer sénégalais yi bu ko deful du ko fi am dara dara du ko fi am parce que ñii ci ci lii lañ xam ci anarchie lañ dundee ba màgg ci lu jaarul yoon lañ xam xamuñu lu jaar yoon xamuñu loi xamuñu règlement xamuñu droit il faut ñuy rëkk seen ndigg parce que réew mii mënuñu ci xeex bay bëgg a dee war ko mën a defar am ñu continuer di saboter partout partout policiers yaa ngi fu ne gendarme yaa ngi fu ne dawalewuñ loi te war a jaaral loi foog nag mu am benn exemple parce que mbég bu yar mbooloo ci benn lex lay dal il faut mu am il faut ñu commencer nag di xeex ak gars yi bu ñu buggee defar Sénégal Sénégal defaru une bonne fois pour toutes parce que ñii ma gis nii amul suicide individuel pour une résurrection collective parewuñ pour suicider wu pour defar réew mi parewuñ dara il faut ñu taxaw il faut ñu jóg reyante ak ñoom oui mënuñu xeex xeex ba yu teye ay xaju xaram bu nga yàq réew mi mënuñu ko nangu non non non non ça peut pas se passer comme ça na la am leen fulla nag na fulla jën am am fulla wax ji moo war a wàññeeku ngeen di commencé nag di ko lijjanti parce que ñun munuñu dee nii mënuñu nekk di bëgg a dee ci ay loxo loxoy policier xeex bay bëgg a dee policier yi toogaat di arnaqué euh, citoyen yi duñu leen bindal di sàcc jàpp borom moto yi di jàpp di encaissé mille deux mille si ça suffit ñu ko yàlla man mosuma gëm ni dinaa xeex ba nguur teg fi Sonko ak yi loolu continuer dañoo commencé yabaate am na benn moment bu ko arrêté bu bu Diomaye waxee wax dañuy xeex corruption bu Diomaye waxee ni léegi nag ñi nga xam dañoo sàcc ñu wala dañ leen di boole il faut nous am loolu am ay numéro téléphone yo xam buñ la bëggee sàcc wala buñ la bëggee buñ la bëggee corrompre nga mën woté fofu directement te ba paré ñoñu mun nek fofu 24 heures sur 24 di jël téléphone di jël téléphone directement nit yi mun leen di wo ba paré di di leen mun dénoncer loolu rek moy mun a sénégalais ay numéro vert pour ñuy dénoncer corruption bi ay numéro vert pour ñuy dénoncer banditisme bi laxisme bi il faut que nous oublions. il faut ñu nous ay ay perspectives ay initiatives li une day ji changé il faut moom am nous volet buy wane day changé ji lu am ci que mi yéeme na sait kenn xamul lan la kenn ko nous kenn comprendre comme Nous fenkat la na bàyyi fen yi na bàyyi fen yi kenn du opposé wu ci ay fen bugaan bàyyil fen bàyyil fen fii gaal gën na fi jóge ak seen yi ngeen di tàmbali di def noonu waa APR ñoo koy def un deux ñu génnal la benn nit na la réer na dof yi commencé di partager kenn réeru fi kenn réeru fi bu ñu nee réer na ñaari fan ñu tourné ne feeñ ne feeñ na fu mu newoon ku la réer na kay xëy na la feeñ na mais lekk fu mu newoon xanaa balaa mun ne feeñ na feeñ na noonu mel ni ko wax ak ay dof réer na ñaari fan feeñ na léegi pour ñu mun a ne nguuru jomaay bi gaa yi ngi sacrifié nit yi ko ñëpp a ngi réer jigéen yaa ngi réer góor yaa ngi réer géey ngi réer mais fu ñu réer xanaa ci ay gorot lañ dugg boo réeree kay ba feeñ nga wax ma yow fu fu mu newoon lépp pour manipulation ay nit yu taxaw rek ne foog ñu yàqal jomaay ak sonko ay nit yu taxaw rek ne foog ñu gàllankoor ñi di yàq ak sabote balaa ngeen di partagé dara na ngeen ko xam xam xam source bi nit du ñëw rek ne Faat Ndiaye réer na rek nga partagé ñooñu ñëpp ay ennemi état bi lañ ay ennemi de la république lañ lépp pour bëgg a jeexi jaax xel yi comme quoi que am na ñuy for nit di seen sàcc di di leen rey ak danga dañuy fenn kenn réerul na nag ay magum jëmm yu am 60 ans 70 ans ñi am 50 ñi am 30 ñi am 25 ñu ne ay réer nañ fu ñu réer jë fu ñu réer ku ak lu mu leen

loolu mooy gouvernement bi war nañ teg ay jéego yu mucc ayib pour xeex corruption bi ñun ñëpp dañoo dee ci corruption bi sénégalais yëpp a dee ci corruption bi every fucking things is corruption léppay corruption Sénégal fépp foo laal day metti ku ci encaissé wul yaa yaa ngi xool koo nax pour pour am loo ko jox pour dem yaana maar absolument xaalis boobu di war a dugg ci keesu état bi dem ci ay poosu jàmbur ñu dem mujj ci ay ndabu ay police police ak ay gendarme ak yoy ñi encaissé du dur di lek sen sen jabo di di di di dank ci bi di ko lek pour lan pour lan tam wara dem ci caisse état bi pour lan ñi ñi wax nak journaliste yi bu ko day gaay ci diggu bop nag sansifi journalisme du foog jang bu mokul sax la damu ñu fenn ñu fenn ces journalistes la c'est ce la lañu yem ak école ay abdou ah, ah, lu tuddi abdou latif koulibaly gi lañu yem bu ñu fontoo benn médecin moo gën dix journalistes benn médecin moo gën dix journalistes laa la wax benn médecin moo gën dix journalistes médecin yi bu ñuy war a foo dem di fa jëli ay ay journalistes nga dem jëli médecin yi médecin yi am ëpp njëriñ foofu journalistes ci gox benn médecin moo gën junni junni journalistes ci gox surtout nag ñi nga xam ne ay journalistes lañ nguur gi toge fi ba léegi amuñu lenn luñu def bu bugg a gisante ak jomaay wax ak ndag moom foog foog ñu tégal gaynde gi amuñu benn pouvoir réew mi kenn déglootul journaliste xam nañ ni fen rek lañu def manipulation réew mi ñooy dem di buuji seen information du ko teg journalisme dex classique dee na si dëkk bi kenn liratul motax ñu lambalé journal 100 francs lañu jaay kenn jënduko ko fen rek lañu def ak manipulation sénégalais ils ont bien compris soxlu soxlawuñu déglu journaliste il faut ñu changer mbir yi sama gars yi ay nit mënuñu fi nekk rek toog ay journaliste lañ di nappaate jour euh, jour euh, nguur gu ñëw ñu manipuler la napp la mais ko nafata dem leen jëli médecin yi nagaa yi dem jëli médecin yi nit yi ñu ngi dee médecin yi lañ ñoo war a gisante ak jomaay ils ont d'énormes problèmes santé bi problème yu mu am journalisme euh, presque bi amuñu ko après yow doo fa jëm jëm jëli ay jour journaliste yo xamni comme si da nga leen di bëgg nax wala nga naxante ak ñom pour ñu bind nañ la bindal waree fa ñooñu la fu journaliste réclamer ñu war ko jël audience président war ko jël médecin war nañ leen jël médecin amul nu mu am jëriñ ci suuf journaliste bo dajalé journaliste yépp buñ dajalo ben médecin leen gën ndax ku ci fièvre ci médecin ba nga dem té problème yi ñëpp xam nañ ko ci santé bi dara changer gu fi ñëpp xam ngeen problème bu am ci santé bi donc ñooñu lañu war a privilégier ñooñu ñii di nappaate fii di menacer waat duñu fifteen fifteen duñu ko dara duñu ko laa la wax tojuñu fenn jàng sax seen jàng mokkul tojuñu fenn journaliste bu ci taxaw amuñu éthique amuñu morale amuñu dignité amuñu euh, déontologie tous amuñu ko koo ci xool xeeb ko koo ci xool xam xàmmeetoo journaliste ak animateur ak animateur wala journaliste sénégalais lépp la ñu kuy wax rek ñu ne la journaliste kuy wax ñu ne la journaliste ñoom ñoom ñëpp journaliste lañ bu ma gisee lu euh, euh, mu tudd di booy bii di wër temps yi ci média bi di ratat sañu booy bii nii di di di suba ngoon toog ci télé bi di kii ñu naan journaliste sama damaa tiit euh, booy kii fàtte sax turam di wax gaa yi encore une fois ngeen bàyyi ji xel aussi waaw ah, yow sesti sax dafa tojotul laa la wax du du fukki dërëm du fukki dërëm ñi leen di jàngal sax boo demee foofu ñooñu ñooñu ci boobu sax ah, ah, c'est pas des exemples même ñu leen di jàngal ay éthique amuñu éthique Abdou Latif Coulibaly ñu génn ci moom du jeex du xaaj te amul étique amul déontologie amul dara Abdou Latif Coulibaly gis ngeen ko lu mu fi def yëpp journaliste bu la gëna a éthique morale dignité nga ne ma kii la xif lañu def dañuy wër ci bureau ministre di ñaan rek di ñaan am ben Ameth ndoy mu tourner gis nga journaliste kan la Ameth ndoy nek journaliste kan la Ameth ndoy nek journaliste kan man mom dama ko multiplier par zéro bo leen sétlo duma sax wax ak mom duma sax wax mi ngi ci sama facebook bi ay amé lañ ci duma ci wax dara dara dara parce que man je me demande man ma dof wala rew mi mo mo jaxoso parce que bu ma gisee Ameth Ndoye mii muy traîner te traîner traîner mais su ma mais Ameth Ndoye mii la Ameth Ndoye yéen a xamul Ameth Ndoye mais kii la xam na Ameth Ndoye man xam na Ameth Ndoye la fa xam na Ameth Ndoye c'est-à-dire ay nit yoo xam ne tekkiwuñu dara dara dara dara dara am cër goo xam ne ci ñun dañuy xëy rek ñëw bëgg bëgg <laughs> non c'est doy na waar daal réew mi daal mi ngi noonu rek réew mi daal mi ngi noonu quoi ndey kooku moom man moom damaa tayal ak toog naan da di wax di wax ay ay turam sax xañ naa ko ba fox dama ko multiplier par zéro quoi multiplier par zéro parce mooy mooy mooy sama téeréer nii booy booy amin booy <laughs> <laughs> amul sécurité lu wax sécurité pour nous sécurité pour nous mais euh, réew mi amatul sécurité ku mu neex jóg doon loola neex taxaw di kii tale yi nag mu mel ni tulleeg male amindooy mel ni benn ñebbe ci biir cin rabax rabax rabax rabax parce que xam fa yéen ko yóbbu fu mu doonut moo tax gëmeewu ko fu amindooy toog rek ma ngay wër ci tale ya <laughs> man man man réew mi sax a soxna nag amindooy nga ci wëndaalu ci studio yi di squat wëndaalu yor ordinateur am fan rappeurs yi suba ngoon mi ngi si suñu ginnaaw cër jox ñu cër gu mat sëkk ma gis ko muy ñu naan ay nit nit dof kii la nangam kii suba mi ngi kilifa ginnaaw suba ndaw non man moom Ameth Ndoye moom du ma ko jege du ma ko laal ju ma ñàkk fayda ba war a toog ak Ameth Ndoye bii di benn bennal non non non non non non Ameth Ndoye bu ma xamoon ca barki démb ak démb jox cër respect fu ñu taxawee mu xëcc seen tegal ñu ñu toog mu jox ñu cër googu ba ma même bu ma ko fekkee Seneweb wax ji bu muy bëri man a moom fexe naa ba musuma suma jàppanteek moom xuloog moom parce que dama ne booy bii moom man vraiment duma fi ñàkkal sama bopp fayda ba wàcc fii di di benn benn ak moom non mukk mukk duma ko sax def ba mu commencé wax laa ko ne booy noppil ci émission boobu noppil da ñu doon ataayaal ko yaa ngi may de da ñu doon ataayaal yow fils noppil da ñu doon ataayaal quoi duñ sa morom nag ko duñ sa morom xam nga ma xam nañ la lan laa ko waxoon Sénégal ba mu mujjee bu mu gisee kilifa naa ko moo laa ñëw ci benn émission boobu nga xam ne moom man la man man ak kilifa la invité ndoo mu ñëw ci émission bi naan kilifa moo laa sax muy taxaw ci émission naan man damay ataaya est-ce que man dama la mos a ataaya la muy kii nangam nangam. donc man moom nawloo ma ko dew ma di benn benn ñàkkuma fayda ba war a toog plateau ak Ameth Ndoye muy benn may ñaar du ma moromam du ma moromam ci saayir du ma moromam ci baatin léegi nag bu sénégalais ñàkkee seen fayda toog fii bëgg naa jël Ameth Ndoye def ko journaliste bu ko def lu kii mu gis boppam nag fu mu ne nii plateau yu plateau Ameth Ndoye tous les jours dina taxaw ci benn plateau bu fee faire l'intéressant <laughs> nañ dem rek li ci ginnaaw raw li bët lu lu waay neex def foutez la merde dina réglé wu mais nag li may wax moom mooy suñu dirigeant yi nañu am tuuti nañ am tuuti caay-caay réew doo ko yor ci ab noppi réew doo ko yor ci ay oh kaama calcul la ko xaaral man réew da nga koy yor ci fulla ak fayda del mbéj di dóor di ngàdd ku dul mbéj di dóor di ngàdd doo yor sénégalais yi maa la wax loolu ku dul ngàdd di dóor di mbéj doo yor sénégalais te doo yar sénégalais yi doo am ndam ci kaw sénégalais yi il faut muy saf il faut muy saf boo fekkee ab mbir yàqu yàqu yaxet nu ngi koy defaree boo góom ak góom bu deewaale ngandam maami dana doo fi nekk naan da ngay microchrome ak alcool da ngay jël këpp ci tànk bi sànni mu yuuxu benn yoon këppatil tànk bi góomu deewaale la munoo koo faj këppatil tànk bi sànni ca xaj bandage ko ne ko acce on continue le combat foofu lañuy ñu mais ni ñu ko nar a doxalee nii ak benn benn la kii ñaan xaar leen kii ñoom ñi ñi ñu njaaba njalle corruption bi continuer sàcc gi continuer mafia bi continé du noonu lañ koy régler non du noonu lañ koy régler il est temps nag mu saf mbéj mbéj yi dal ba ñeneen ñi di ko gis parce que loolu wolof moo ko wax nee na mbéj buy yar mbooloo ci benn lex lay dal boo rëkk boo xëccee kenn ñu ko tëll ñeneen ñi gis ñu ne lan la def ñu ne daa tuur fii mbal ñeneen ñëpp ku ci yor sax mbali di nga xool noo ko foo koy teg lan la def dafa ubbi kanaal bi yanu yenu fer bi dem sàcc ko dafa fekk pont bi mu dindi boulon yi yóbbu mais mais loolu ci nguuru jomaay mi ngi am ci nguuru jomaay di ay nit ñëw ci ba ci pont pont bu ñëpp di jaar nga dindi boulon yi yóbbu jaay kanaal bi nga dindi canal nga dindi fer ba dem jaay ah amul benn poursuite nañ topp ñiy duma leen duma saf sap

il faut sa dire la vérité marchand ambulant loolu ambulant la marchand ambulant nga yor sa bagage di wër di jaay boo xasee nag ba toog ba teg sa table tablier nga nekk toog marchand ambulant tablier nga bu fekkee ni da ngay encaisser mairie bi day encaisser ci yow juuti yaa ngi joxe lu dul yoon mais réew mi foog ñu foog ñu bale ko gars yi nan ngeen bëgg ñu liggéeyee ñi nekk ñi nekk di ñu maccalante ay ween ngeen bëgg ñu continuer noonu doon ay yaay di maccalante ay ween bëgg ngeen ñu lijjante ko ñu jóg commencé jóg mu saf sàpp usine benn tali bi yëpp yàqu na lépp ay marchand ambulant la lépp ay tablier la kenn mënatul dox ci ci ci ci jàmm nga nga ne xaaral moom ma wàññi moytu usine Bentali dem HLM 5 bu ma demee foofu du HLM 5 garage Guédiawaye ba Colobane lépp ay tablier la ngeen ne la war a bàyyi réew mi mais wax leen ma ngeen ne noonu la war a bàyyi réew mi fu ñu war a dox ngeen ñëw teg fa seen i table fu ñu war a dox ngeen ñëw samp fa seen i seen couverture ngeen ngeen ne noonu la war a bàyyi réew mi noonu la war a bàyyi réew mi bo demee ba liberté 6 boko dalé di rombu fi nga xamni ñun yëpp fofu lañ doon rombu fi tali la fi tali la ci digg bi lañ doon rombu fofu yëpp légui ay ay ay marché la ngeen ne lañ wara a réew mi boko tambalé di rombu di rombu wal fajiri di dem ba liberté 6 ngeen ne noonu lañ wara a réew mi hey ngeen ne noonu lañ wara a réew mi parce que da ngeen bëgg ñu leen di nampal mais il faut arrêter là liberté 6 rond point liberté 6 lépp tablier la fépp fu nit war a jàll ay ay ay ay ngeen fa ngeen ne loolu la ñu war a bàyyi réew mi parce que leen a ragal nga jëlee liberté 6 di dem ba HLM ah, H&M Grand Yoff foofu yëpp ay ay place la foofu yëpp ay tablier la ngeen ne loolu la war a bàyyi réew mi hey arrêtez arrêtez là réew mënul doxee noonu fan la nit yi di doxee léegi fan la nit yi di doxee HLM 5 foofu yep legui ay place la ngeen legui fan lañu dox ñun ñun ñi yoru table fu ñuy dox ñun lañu wara wacc ci talibi auto yi ñoo fiir ñu ray ñu fan lañu jëm fan lañu jëm la la wax buñu ñu buggee réew mi dox lañu waxante deug sinon buñu dul waxante deug ci rayante lañu mujjé Sénégal yep fep marché la usine benn tali bi léegi ba dem ba dem Castor marché la sa buntu kër ngay génn ba ci mbedd ma fépp partout marché la nga jàdd noonu bu euh, lu mu tudd boobu noonu ngay continuer noonu ba Castor marché la ci mbedd yi fu ñu war a jox ngay demati noonu ba ci boulangerie bu nekk foofu noonu je sais pas marché la ngay tourné war a mel ni kuy dem Walfadjri foofu yëpp ay marché la nga dem ba Liberté 6 marché nga jàdd di dem ba HLM Grand Yoff marché la ba Grand Yoff ca pont ba marché mais fu jëm mais fan la jëm ak yéen ku laal ñu ne noo bàyyil nii noo bul laal fii non non marché ambulant la dama ne fu mu ko teg du yoon moomu ko bu ko mairie fay loo way juuti na ko ñuus moomu ko fu mu fa teg daf ko bokk ak man waaw daf ko bokk ak man dañu waxante dëgg donte dañuy rey réew mi li fi nekk jaarul yoon li fi nekk jaarul yoon nga dem ba biir Dakar Sandaga ñu génne la ñaata nit la fa ay oto rey ndax lan fu ñu war a jaar lépp lañ ko def ay tablier am na jigéen joo xam ni euh, fii la doon jàngee Lamine Gueye dëkkoon sama koñ dama xëy ñëw ñu ne ma dafa accidenté tànk yi damm ma dem di ko seeti ma ko yow la fo tamé mu ma école la génn di dox sandaga. ab euh, lu mu tudd Dakar dem dik fekk ko rajaxe ko da ko noonu rey damm te ñaar tank yëpp yaram bi ñu def ko fer tank yi ma ko ci fu nga wara dox ci trottoir bi mu ne amul trottoir fu ma jëm ci mbedd ci trottoir bi ay ay marchand bi la ñoo taxaw fofu trottoir bi ay place lañ ko def ci tali bi lay dox xool leen loolu léegi nag ngay wàcce ki nga xam ni moo rey lu booy boobu wala moo moo damm lu kooku mu ne la non man marchand bi laa la dama war a toog fii ko am naa fi droit mais yow réew mi ni ñu dañoo xeex réew mi pour mu continuer ba xam ñun dañ koo xeex 87 morts pour ñu continuer ko nii embouteillage bi ne tulleeg male dañ koo xeex mais yéen marchand ambulant wala taabé yi mais gars dañ leen di dàqe demal Amérique marchand ambulant yi dañ leen di dàqe boo demee Espagne marchand ambulant dañ leen di dàqe fu ñu ko lal ñu topp leen teg leen choc amul benn dëkk ci àdduna boo xam ni marchand ambulant yi am nañ droit di lal fu leen neex Canada gii fu ñu ko lal dañ leen di topp biir Paris fu ñu ko lal dañ leen di topp mais boo ñu bëggee dëgg dañ leen di dagar piir dañ leen di dagar piir foofu du seen place place publique la dañ leen di dagar piir léegi fu waay neex dóor fa ay euh, magasin am commencé xelli café mais nan la nan la réew mi di doxé ci nonou koñ bo dem amna na café nga xol gauche xol droite gis nga waa ci bir dëkk ci biir ci wetu tali bi la dóor mbari mbaaru café mom dóor mbaaru café commencé xelli café Touba ay di jaay café Touba 50 cent nga jël yobul sa keur li nga def loolu jaar na yoon fi ko lal nak fi nga dóor sa place nak après nga ne kenn du la laal kenn du la jege am nga ci droit Sénégal trottoir amatu fa non mais c'est jamais vu c'est pas normal sacrifice bi day am ci ñun ñëpp ñun ni di sacrifier dañoo sacrifier wu pour mu changer mais sacrifier wuñ pour mu continuer donc ñi nga xam ne mooy ay marchand ambulant yi wax na ay dañoo mere Sonko Sonko waxu li ah Sonko moo ne leen bu ñëwee de marché ambulant yi day gën a bëri Sonko lan la leen waxoon Sonko waxu leen mooy maanaam lan wax tappale yooyu Sonko waxu leen lii mooy lan ñu koy politique non kii waa kii ne ñooy Sonko waxu leen lii marché ambulant yi ne Sonko waxu leen lan la leen Sonko wax ñoom ba xam ñoom ñoo am ay nopp di dégg ñun lu ñu déggul. ba xam Sonko moo am fitu taxaw fi naan marchand ambulant bu ma ñëwee dëkk bi yëpp dama koy def marchand ambulant fépp ngeen di lal fu leen neex lal lal leen ci trottoir bu leen neex maatay def leen lu leen neex loolu leen Sonko waxoon Sonko musu leen wax loolu Sonko musul bu ma faloo dinaa jël lu ñëpp moom jox leen ko yéen Sonko musul wax ni bu ma faloo dinaa jël lu askan wi moom di am ñenn yi rek di ko bénéficier wu ñeneen ñi sànku wala ñeneen ñi di wàcc trottoir yi di dox oto yi di Sonko waxu leen loolu Sonko musu leen wax loolu lu ñepp bokk di ngeen ko fi bayyi ak ko mëna doon nak muy marchand ambulance bi di police bi di gendarme bi di katu bureau bi partout sonko musul len wax ni buma ñëwé dina len bayyi ngeen di def anarchie parce que momul sénégal sa ba leen koy wax sonko momul sénégal mom ba bay bay wax ni marchand ambulance buma ñëwé ndé ndey waxu ko taxaw len fu len neex dox len fu len neex samp len fu len neex jaay len fu len neex loolu leen sonko wax wala da ngeen dégg luñ déggul kooku Diomaye am moomul réew mi sax bay bay bay joxe loolu mais il faut arrêter la fëgg leen leen tëbb leen mbalit lépp tuur leen tegee leen nële voilà centre commercial yaa ngi fi ku bugg na dem ji wuti ay ay ay boutique sinon ñeneen ñi nañ xam ni c'est inégalité la ñuy dox bu ñu leen jàppee nañ ko nangu bu ñu jëlee seen bagage yi nañ ko nangu bu ñu ko tibbee tuur nañ ko nangu parce que loolu moo am Espagne moo am France moo am Amérique moo am Canada moo am partout voilà mais il faut mu leer foog mu il faut ñu waxante dëgg beneen bu ci des moom mooy Macky Sall mi ngi ñëw senegal parce que doomam ki nga xam ne mooy Ibrahima sàll day takk jabar ki muy takk doomam Ibrahima Sall mooy doomu Macky Sall mooy mooy takk doomu euh, Tahirou Sarr bu ñu nee Tahirou saar nag du le jeune Tahirou Sarr bi nga xam daa dem jàngi France am ay diplôme am xam-xam am ay maîtrise Tahirou Sarr bi ñuy wax nii Tahirou Seydou saar la tudd musul jàng munul bind turam bokk la Tahirou Sarr bi nga xam dafa jàng intelligent bu waxee nga xam ni kii boroomi xam-xam la Tahirou Sarr ku am ay argument la di ko teg fu wóor boo ko ñimee demal nga rof ko tàngoor ci daba musu leen gis débat Tahirou Sarr mu ma leen di wax ni jàng am xam-xamam lire ay livre di boroomi bopp kenn mosu ko fekk ci plateau rajo ko dem sa yoon bokkul ak Tahirou saar bi nga xam ni moom mosul jàng munul bind turam kii magasin la yoroon en face euh, impôt domaine di fa jaay ay string di fa jaay ay sous-vêtements di fa jaay ay caleçon am ay client gars yi di gis muy dugg di génn di dem ay turki di jënd ay kii marchand jaaykat la comme ndongolo nu mu ko wooyee woon ak yooyu kooku euh, sama grand ki euh, kii Assane Diouf xam na ko Tahirou Sarr boobu noonu moom moo moom moo takk ci 94 milliards Mamour Diallo yi parce que moom moo dem jaay terrain bi comme dafa am ay nit Amadou Ba politicien APR soxla woon ko parce que jaaykat la di jaay ay string di jaay ay body di jaay ay sous-vêtements et cetera dugg ak génn bi du baax xool repéré xam ne waa jii kat am na ay nit mu récupéré ko woo ko di ko jox ay terrain Tahirou Sarr dakaar googu quatre-vingt-dix-neuf pour cent terrain yi moo ko jaay jaaykatu terrain bu tàng la parce que ci clients yi lay dem rek yor naa terrain bi di jaay donc moom liggéey naag Amadou Ba jaayal na ko ay junni junni terrain liggéey liggéey naag Mamour Diallo jaayal na ko ay junni junni terrain liggéey naag ñeneen ak ñeneen ñu newoon impôt domaine parce que bu diggam ak ak impôt domaine ñoo jàkkaarloo woon noonu moo ko may tey c'est l'un des plus grands milliardaires du Sénégal Tahirou Sarr mais jangul nak munu lire amul xam-xam dara ko donc Tahirou Sarr bobu marchand ambulant lawon am boutique loolu la don jaay mo muccu dem di jaay ay terrain ba léegi multimilliardaire la multimilliardaire mom nak ñom comme legui ay milliardaire lañ domam yag na gelantou bu yag la nak loolu sen dund la quoi booy booy booy Ibrahima Sall day doxaan doomam bu jigéen gelantu woon nañ yàgg nañ après bàyyante xam affaire booy dem feneen mu doxaan keneen ñëwaat léegi nag mbëggeel bu yàgg la ay temps de miinante lañ na léegi dañuy takkante kon siraatal mustaxim la sañ yoon na ko ci luñ dugg quoi xam mais euh, gelantu bu yàgg la bu ñëwaat bu ñëwaat bu lu ñu defaraat lu ñu defaraat lu dox lu yàgg mu càpp fii càpp fee cuut fii cuut fee ñu ñëwaat donc Tahirou saar boobu mooy jël doomam bu jigéen may ko Macky Sall doomu Macky Sall ñooñu ñu takkante mais loolu lépp suñu yoon na ko ci ok euh, ki nga xam ne ak farba sangor farba ngom farba ngom du moins farba ngom aussi ay njabootam ak ak tayru saar njabootam ñoo ñëpp takkante nañ am na fu ñu takkante ci kër ci kër goo xam ni euh, euh, farba ngom ci boppam doomam ki ak tayru saar et cetera et cetera mais maanaam dafa jaxasoo Macky tayru saar Eh, Farba Ngom yooyu dafa jaxasoo dal dafa jaxasoo parce que tayru sar ak Farba Ngom ñoo jaay presque Dakar yëpp Dakar yëpp presque ñoo ko jaay bok nañ ci ñu upp ñu jaay terrain senegal léegi nak Macky Sall lay loolu yëpp ci droit ah, domam lay maye ok wa mais xam lan moy problème bi nak Macky Sall bu ray 86 personnes indi 45 milliards armement rajaxe rew mi raxat rajax rajax rajax neen day ñëwaat waaw léegi lan la ko peuple sénégalais bi di réserver mu wara tak doomu domam dafa wara a Macky Sall mom ha ah, mom bam mu joggé dafa ray 87 doomu arama yo xamni ba légui seen ru noppeegul seen njabot yaangi joy ba légui 87 doomu arama yo xamni ñi ngi tok te seen njaboot yaa ngi ba légui ñim fi gañ seen njabot yaangi seen njabot yi ba légui ñu faju ci mu jóge fi ñu ne na way nee yo mom fami ñew bàyyi na fa ay dëj dëj yi dëj dëj dëj léegi moom foofu la war a ñëw pour def fa benn mariage doomam ak jabaram ñu ñu rajax rajaxe foowee Sénégal def lu leen neex njaaba njalle noos mu delluwaat ci jàmm ah mais loolu nag bu ko sénégalais accepté nag <laughs> loolu man man man je vois que c'est saaga la ci ruu yi tëdd tëdd ak jëmm yi tëdd ci suuf ak lim fi teg am na leen lu mu waroon xalaat loolu nag sénégalais ñoo koy réglé seen bopp ba xam ñun dañuy toog seetaan Macky Sall dem ñëwaat ak avion ànd ak jabaram ànd ak njabootam ñu dem yoof lundi bii la lundi yoof à 15 heures yoof kër ki ki nga xam ne moom mooy Tahirou Sarr këram ngandam maami kër boo leen demee yoof foofu la mariage bi sa lundi la 15 mariage bi Ibrahima Sall doomu Macky Sall ak doomu Tahirou Sarr yaay ja ñëw doom ja ñëw ñu njaaba njalle moment ya ñuy feetu di foo di lekk di naan am na ñoo xam ne ñoom ba léegi ñu ngi jooy te noppeeguñu te ku rey seen i doom Macky Sall mii ku rey seen i doom Macky loolu nag warul yomb sénégalais waruñu ko bàyyi noonu waruñu seetaan waa ji ñëw rey njaboot yi dama dem noonu nu mu ko neexee dellu nu mu ko neexee loolu moom warul te nag bañ ci buñ noppee après ñoom dañuy dem vacances ah parce que ñoom tàggu nañ ma na dañuy dem vacances bu ñu paree Kuala Lumpur la ñu dem bu ñu paree Kuala Lumpur foofu la defee ligne de miel ba bu ñu paree ci Kuala Lumpur ca ligne ba ligne de miel ba le jeudi ba lundi la mariage bi jeudi bi la ñuy jël avion ñoom njaboot ga dem Kuala Lumpur defee fa ligne de miel ba bu ñu noppee foofu noonu après dem dëkk ji Amsterdam ñun seen njaboot yaa ngi jooy ñañu rey noppeeguñu gaa yaa ngay yuuxu kër yaa ngay toj ndampaay fukki dërëm jotaguñ ko njaboot yaa ngay jaxasoo léegi nag waa ji nee na day ñëw nag ba xam ñun dañuy toog ñun waa jii nii dafay ñëwee noonu euh, def mariage yi doomam ni tulleeg male ñu pare après ñoom dugg seeni avion nu mu leen neexee dem parce que ba xam amul benn pour poursuite pour man sénégalais sax waruñu xaar ay poursuite parce que kii day sabote vraiment rey yi nit ba pare ñëw retourné waat ñëw ca dëkk ba dëkk ba waa dëkk ba di dëj di jooy te noppeeguñu nga ñëwaat fanaan naan yow yow nga jël sa indi ñëw sa ndax sa doom nga def nga fay defi mariage noo loolu moom pour man kenn waru ko nangu man day sa waay munoo rey sama doom ba pare rey sama njaboot rey gu ñaaw ñëpp gis nañ ni ñuy niñ dee nu leen Macky Sall reyee ak ak njabootam ñëwaat dugaat avion ñëwaat fii pour mariage ak i jabaram ñu fecc teg seen i kii musique lekk seen i beñe def nu leen neexee ak doomu Tahirou Sarr ñi pare jógaat après dem vacances yi ni liñ dem yàlla gi <laughs> ñaanu ma ko yàlla en tout cas daal man moom sama xol bi métti na benn metti boo xam ni sama xol bee ngi dagg benn xeetu dagg boo xam ni nee naa gis nga peuple bu taxaw ku leen def lu mel nii billaay boo fa naree teg tànk laa wax peuple bi danañ jëw peuple bi dinañ jóg dinañ jàmmaarloog ñoom parce que munul yombee nii munul yombee nii quoi munul yombee nii bakkan dafa fort Macky Sall war na xol leneen lu loolu lan day jéem sax ñëw pour waxuñu fan lay ñëw mu ne noo day ñëw pour ay ngénte ki sabar ak xawaare ki mariage vraiment du cër du respect du respect du respect en bu ñu am ci moom ak lim fi yàq noo Macky Sall amul déjà dafa rëy sax ci moom mu nekk fële nekk GP prési ab président di dem ak ñëw waxatuma dara mel ni ku ñuy sabo sabote wala ku ñuy yàpp wala ku ñu miin ba bëgg a duggaat ci dëkk bi nii pour marier doomam ak benn doomu sàcc ñu def leneen neex bu ñu paree mu dugaat encore di yoonam man pour man loolu amul lu ñuy xaar ci état bi parce que état bi déclenché gul dara déclenché gul dara te loolu nag moom beneen problème la beneen souci la boo xam ne bëgguñu sax dugg bëgguñu ci sax dugg parce que man moom musuma gëm ni musuma gëm ni man jàppale sama wax ji de ñu ngi ci lan mille vingt 2024 jàppale sama wax ji musuma gëm ni état dina jàpp Macky Sall tëj ko ci kaso loolu man gëmuma ko bokkuma ci ñu ko gëm am naa ci nag droit te am naa ci it fi ma ko teg dama ne Macky Sall man Mollah Morgun bokkuma ci ñu gëm ni dinañ ko jàpp na ko nuus dugal ci kaso bi kooku moom man loolu man xam naa ko man man xam naa ko ci teg ku fu wóor nag léegi nag sama kàddu foofu laa ko teg képp ku weddi jëlantee man man nag du ma sénégalais yu dul fàtte de yu dul yuy fàtte de dama lay rappeler képp ku ma ci défier noteel ma note ma ne du kenn du ko woo kenn du ko woo du taxaw ci tribunal te duñ ko àtte man maa wax loolu ku ko weddi nag maa lay xaar teel ma téye ñu to ñu dawal ñu dawal incha allah voilà ñu xool rek défier naa képp nag képp koo xam ne pare na rek pour défier wu man pare naa loo teg ma teg ko loo teg ma teg ma doublé ko loo teg ma doublé ko voilà léegi nag moo tax ma ne peuple sénégalais bi ñoo ko mën a fajal seen bopp voilà peuple sénégalais bi ñoo ko mën a fajal seen bopp Macky Sall waru ñëwaat ci réew mi fekk fi quatre-vingt-sept doomu aadama yi nekk ci seen i pax yoo xam ni sax yi lekk nañ leen seen njaboot yaa ngi jooy yàq nañu réew ma jaxase lépp dem yoonam bëgg ñaar fii amul ci lan lu muy ñëw ñëwul ci dëj ñëwul ci dara ne da ngay ñëw pour marier sab doom sa doom bu nga protégé deewul gaañuwut léegi dem na ba mu neex ñëw na léegi nar a takk doomu kii ngeen feetu def leen ne après demat ba xam peuple bi leen ci bàyyee noonu incha allah waxuma laa nag prisonnier politique yi rek buñ jógoon prisonnier politique yi rek buñ jógoon plus de deux mille cinq cent kese kese kese dem taxaw ca yoo googu foo taxaw ne kër kër Tahirou Sarr ñu woon la ñu dem foofu la nañ ko defee ca jàkka ñu taxaw ak ca kër ga ñu taxaw foofu noonu mettit lu yuuxu yor ay pancarte fo ñëpp ñu bind ko ci télé mondial yëpp wane ko ci télé mondial yëpp ñu xam ne sénégalais yi Macky Sall bu mu duggaatee yëngal nañ yëngal nañ ba mu saf sàpp bu mu fi ñëwaatee nekk wute naag bu sénégalais il faut ñu wane loolu parce que télé yaa fi mouvement demeure boo fi def de yëngu télé yaa fi télé mondial baa fi nangam nangam il faut sénégalais won Macky Sall mais que il n'est pas le bienvenu ici au Sénégal il n'est pas le bienvenu ñu naqarlu ko mettit lu ko taxaw jaayante ko mom, même bu dañuy ñëw fofu sax dajalo sax def ay bruit yuuxoo ko wala dara sax

ci ay yuuxu ci ay sànni xeer yëngal ba mu saf sab aduna bi yëpp yëg ni il n'est pas le bienvenu ici parce que c'est un criminel c'est un tueur à gage mu ray ay sénégalais toroxal leen jabot gi yëpp ngi ci ci bi ci ci ñu mu ray ñëpp ñi ngi ci ñi ngi ci bàmmeele te moom mi ngi dox ay soxlaam waaw loolu loolu moom le peuple sénégalais laa koy ñaan ñu taxawee taxawaay bu mel noonu ba wili pande ko ba aduna yëpp yëg ko ba yëpp gis ko criminel tueur, nous, Macky Sall criminel, Macky Sall criminel, tu n'es pas le bienvenu, Macky Sall criminel, tu n'es pas le bienvenu, Macky Sall dictateur, tu n'es pas le bienvenu, Macky Sall tueur, tu n'es pas le bienvenu, Macky yëpp mbedd mi yëpp génn yuuxoo ko ba mu sax sax ba adduna bi yëpp ko ñu xam ki kii ñu toroxal ko wili pandako, ko ba nga xam ne adduna bi yëpp dañuy xam ni kii dëkkam dootu kon balaa moo ñëwaat dina ko xalaat balaa moo taxawaat ci dëkk bii dina ko xalaat tant que atte wuñu Macky Sall amul droit ñëwaat fii Sénégal parce que ay néew la fa bàyyi réew mu ñu jaxasoo la fa bàyyi donc tant que atte wuñu criminels yi numéro 9 yeeg ñu doon dox ak ñu yor fetal yeeg quatre quatre quarante cinq milliards beeg yooyu Macky amul droit sénégalais war ñu ko may mu ñëwaat naan day toog sax bay am leen lu muy wax. donc na ñëpp taxaw na ñëpp def ko seen combat na ñëpp métti loolu la ko ñëpp naxarlu xam ni criminel baa ngi bëgg a ci réew mi ndax mariage doomam. teray ay doomu jambour naka ñepp taxaw na ci ñepp farlu bu mu don lu yomb bo xam day ñew dem yonam lool defet la te lool c'est une insulte à nos morts sénégalais yépp taxaw waji ray ay nit 87 morts dem ñëwaat duggu ci jamm génnaat jamm lool c'est une insulte nationale à nos morts à nos disparus à nos martyrs parce que criminel mëno def li nga def ba paré ñëwaat ci réew ma rey doomu jàmbur yi pare ñëwaat fa di foofu mu la neexee yaa génnoon décidé ba nga fi jógee da ngaa génn décidé dem dëkki marok damal dëkki Maroc nekkal ci sa jàmm pour ñu provoquer sa waaj yi boobu ba léegi ci provocation la ne dafa commencé rof tàngoor président yi arrêté ko na ko arrêté bu bu bul dugal sa loxo ci politique ba mu rocc loxoom foo ko fekk Macky Sall maa ngi nalaw bu jàmm maa ngi si jàmm maa ngi nalaw consciemment tranquille conscience tranquille sabatu bu métti la nekkee jamono ji saboté sabotage bu metti la Macky Sall nekk jamono ji comme si yëgul nii ay na fi ay nit donc nak c'est le moment où jamais fi nak mom peuple bi jekku nañ ko bële dafa genn palais daw euh, avion présidentiel bu yobou ko mi ngi doog ñëwaat léegi avion présidentiel du ko indi te momul policiers yi force euh, reste plus à Macky Sall gendarmerie reste plus à Macky Sall l'armée reste plus à Macky Sall léegi force reste au peuple sénégalais sénégalais guen génn yëngal ba mu force reste au peuple sénégalais et force restera au peuple sénégalais na ci gars taxawé ni amna solo té day wane ni rek amna luñu metti té day ni conscience la conscience euh, historique de nos morts ñun wuñ ko y a une conscience historique bu dess ba légui ça yu ñu gisee nous ñi mu ray lañu xalat ñi mu ray nit nak il faut ngeen am tuuti xolu nit sàcc rek bu duggoon foofu ngeen takk seen xarub tabaski sàcc sàcc ko billaahi ñu libéré sàcc bi muy doxantu ci koñ ba da ngay yuuxu sàccee te sàccu la yéen ñi ñëpp te bakkan dafa foor dama ne boo takkoon sa xarub tabaski ab sàcc sàcc ko nga yëg ko waxuma la de ab sàcc sàcc ko yóbbu ko tabaskee ko nga am problème mu tabaski ñu nga dem boole ko ñu jàpp ko tëj ko un mois buñ génnee ñëw di doxantu ci koñ bi nga gis ko di nga yuuxu wooy sàccaay sàccaay wala nga ko moo sàccoon sama xarma moo sàccoon sama xarma te gis gis nga kon gas nga nu mu la nu mu la foofu ba nga xam sàccum xar rek mun nga cee rey nit ñu ci bëri fii rey nañ fi dóor nañ fi sàcc ba muy bëgg a dee ndax sàcc portable sàcc portable waxuma ne ku sàcc seen i milliards rey seen i njaboot rey peuple écrasé leen quarante cinq milliards armement dóor leen ko façon bu ne donc nag ni ngeen amee ci mun a sàmm seeni xar wala seen bëy wala seeni mbaam ngeen mun ko sàmmee ay bakkanu doomu aadama yi fi waa ji jëlee bët bu rusul toj bët bu donc bàyyi Macky Sall mu ñëwaat ci réew mi di takkulu doomam ci ni mu ko neexee ba génnaat réew mi c'est une déce défaite et une déception énorme yoo xam ni ku ne ñu nekk seen bàmmeel bu ñu mënoon génn dinañ génn nañu yéenay traite yéenay workat yéen lañ àndaloon di xeex waa ji bu ñuy tiire yéen lañ àndaloon bu ñu waa ji di visé pourtant noon na la rey de visé boobu policier ba visé ba tiire xale ba mu daanu ba bàyyi fab cara xam bu yu ndey saan yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana pourtant bal boobu mënoon na laa te yore drapeau loxo neen tiire ko ak drapo ba mu daanu bu drapeau ba daanu lu mu ko bal ba dalee moom euh, euh, euh, ndem si yàlla si wàdd mënoon na laa dal donc ñooñu bu ñu am dëgg ci suñu kaw dëgg bi nag am ko suñu kaw mooy waa ji leen rey ñëwaat ci dëkk ba moo génnal boppam soxlawuñ ko fa buñ ko soxlaa justice da koy woo mais bu fi ñëwee ñun lay amal affaire ñun peuple Sénégal bi ñu koy wax Macky Sall ñu ngi lay dànkaafu di la artu di la wax ni lëndi ñu ngi lay xaar dimanche ñëwal du lundi mooy mariage bi boo dee góor rek dugal ci dëkk bi yow Macky Sall dinañ la woon ni criminel nga dinañ la woon ni reykatu nit nga dañ la woon ni réew mi da koo bàyyi ci jaxasoo bu jaxasoo lëmb da koo yàq yaxat te doo fi ñëwaat noonu yaa jël sab décision ne da ngay dëkki Maroc di dëkki Maroc te may ñu jàmm di ñu bàyyi ci jàmm ñu xool nan la ñuy revenir ñu xool nan la ñuy defaraate suñu réew mais doo duggaat ci suñu réew loolu moom yaa ko fi bàyyi woon ni nga ko fi bàyyee de ton gré noonu ngay dem foofu nga newoon nga toog fa ci jàmm waaye duñ la ko may fii ñu la koy wax nag boo ñëwee di nga xam ni fekk nga fi ay gor fekk nga fi ay garmi te duñ fàtte démb ak bërki démb li ñu toroxal ak li nga def ak njaboot gi nga rey ñu ngi lay xaar ak ñi nga tëj ci kaso yi ak ñi nga taal seen kër yi ak ñi nga def du n'importe quoi ak ñi nga yàqee réew mi ñu ngi lay xaar ak jàmm incha allah. kon nag gars yi soyez au rendez-vous de l'histoire le lundi bi nii le 15 incha allah à Yoff këru Tahirou Sarr Macky sàll ak jabaram ki njabootam dina ñëw pour maye seen doom Ibrahima Sall. ak euh, doomu Tahirou Sarr sàcc bi sàcc seen i milliards doon ba doon milliardaire sàcc seen i terrain jaay ba doon un multi multi milliardaire kooku te jàngul mënul bind ño ñu ngi leen di xaar ñun le peuple sénégalais digne intègre ñu ngi leen di xaar incha allah ba lëndi bu soobee yàlla jaajëf peace and love and I'm